des Production Need a production. dafa métti koor gi fi mu tombeel moom métti. bii bii tey métti na. Ah? Eh, eh, booy. Ah. yow looy taxaw nii rek di xool fii nii ci biir nii rek ah, mbaa jàmm la. na ngeen def ñu ngi sant bu baax kay. waaye ñu ngi si jàmm ñu ngi si jàmm kay. alhamdulilah ñëwee nii ñëwee nii ñëwee nii ñëwee sant yàlla bu baax kay. yàlla li muy def moom kenn mu ci dara. dëgg la ah. ñun nag boo gisee ma ne la taxaw yàlla def liggéey nekkul ni day noppalu de. ah moom nelaw. non nelaw yàlla ko soxla jërëjëf. man la sama gaañ. ah. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. gaañu fan la gaañu. standing wala. waaye nag yow waay gaañu décédé. décédé waaw mort. tey bii laaj bi trois cent mille wala quatre cent mille du baax na tey dara baaxu tey jii yow tey yow tamit jël bi. Ah. kër bi man maa ngi tëj man man man waaw imaam imaam ma juumul moom imaam daa dem voyage. kii mën na bokk. parce que xam nga boo gisee may lemal lemal nii. xam nga en général des fois nga engagé néew yoo xam ne nii doo xam néew lu mu doon. mais comme que yow moom nii ma la gisee nii moom ku ku ku normal nga. waaw bii bii bii ku dee fii bii. man maa lay sang man maa lay sang après yóbbu la léegi nag ah. imaam bi moom moo koy sang. Ah. moo koy waaw. jooy tamit. jooy. waaw ñett yooyu yëpp moom moo koy ah. eh, ah, moom dee rek kamay booleeg moom la eh, eh, ah. boobu kon li nga li nga bëgg yëpp bu fekkee noonu loolu la. dañ la koy gongo balal rek. maanaam comme que ma man sang. maa fan ñooy fanaan ah ñooy jooy bu ñu xëyee jullee léegi kon loolu da ñuy jox six cent mille lan ah booy risque boo duma ko def jooy day tàmbali yow kay booy bu la ci dara naqari soo bëggee dinañ la sangal néew bi fanaanoo ko jooyal la xëy suba rob ko loolu mën naa ne mais six cent mille yi moom day mat moom booy day mat de six cent rek kay man yow laay déglu nii waaw. bisimilah. ah jubóo nañu. léegi matériel yi ñu koy sangee foofu am na ah kon Ahmada. yow day bëgg combat combat nañu. yow nag yow ban façon jooy nga bëgg jooy en douce wala. jooy rek ci kaw. ah ñu jooy ci kaw.

a Production.